quatorzième édition tournoi football bu Maître Augustin Senghor du président fédération sénégalaise bu football amal nañ sen finale ci samedi bi ci Gorée te doxon ci diganté Kumba Castel bu Gorée ak Barça bu Kër Massar lu ñël Benjamin bi wa Kumba Castel sax ñoo mujjé jël ndam li ci kaw Barça bu Kër Massar ci ñetti bal ci benn ca noonee ñenn ci ay autorité teewoon nañ ci bés ba ku ci mel ni Tidiane Camara di directeur cabinet du maire bu Gorée ba noppi di ñu leeral li waral teewaayam ci bés bi. dafa doon tournoi boo xam ne bi Ibrahima Faye bu Marzin Sport moo koy organiser chaque année et je crois que ñu ngi ci e édition euh, chaque année mu ñëw def ko fii jox cër bi Gorée. Alors, depuis que Maître Augustin Senghor aussi est aux affaires, ici à l'île de goré comme maire, aussi comme président de la fédération nous accompagner événement bi parce que xale yi un avenir yi réew mi soo ñuy football football école de football centre de formation donc suñ taxawaay moo di su fekkee ne am na militant la football bi di encadrer petite catégorie yi di def ay compétition partout ci réew dans dal li ñu indil bi de Gorée nous avons lu le rafetlu ko ci le président fédération et le maire de Gore. tout le monde sait aussi politique am appuyer le football appuyer les petites catégories donc ñun day un honneur pour nous, moi Ibrahima dañ koy encourager di encourager ñi muy pour nous, continuer à bi nga ne ëllëg le mi tout du football maam Giseli Meng ñu gën koo xam ci yaayu xale yi di kontaan bu baax ci bés bi ba noppi di ñaax xale yi football ak tamit seeni waajur ngir ñu gën a jàpp ci seeni jàng. et comme man xale daf ma ñor petite catégorie bi li may wax toujours fédération petite catégorie mooy yor ëllëg équipe nationale mais d'accord ma ñu naan. Euh, junior ak nangam ce sont les écoles de football école de football yi ñooy ñi nga xam ne ñoom la ñu war a toppatoo ndax ñooy doon magu ëllëg ñooy yor équipe nationale ëllëg programme bi kontaan naa ci c' domage dommage que Augustin dafa maître Augustin Senghor mu maire wu Gorée dafa voyagé hier précipitamment di kon moom day teew mais DCM ñëw na muy Tidiane kamara bi mu ñëwee sax la naan moom bu ñëwul woon sax man ma ñëw rek doy na mais ba tey ñu nekk fi ñun ñëpp daal ci lay gën a neex ndax léegi bu ñu ne sport étude baa tax étude moo la gën a moo gën a ñor nit ñi ndax man dama ci am doom joo xam ne ren lissance lay def mais étude am la fa mu pour ne pas faire de publicité muy jambar et am la ñu gën a considérer licence lay def ren may wax yaay yi ku ci nek na boot domam jàppale domam ci football bi waye nako ko ci sport bi ci étude bi étude bi mo jitu ndax sport bi temps rek la mais surtout étude bi na leen japp nañ jàppale bu baax xalé ci étude bi ak sport bi ta xamné ne ëllëgee ñoo di yor comme xalé yi loolu la bëgg té ñu né moy gënné millions yeeg milliards yi. Henri Matar Diémé moi mon objectif c'est quoi c'est que je suis pour les deux l'éducation et le sport je suis pour les deux hein. moi actuellement ce que j'ai toujours dit je soutiens les jeunes du bas âge 5 ans 6 ans comme vous voulez pour leur faire comprendre que maintenant c'est pas seulement les études il faut y mettre les sports et qu'on fasse les deux en même temps et avec les moyens de bord que nous avons, monter une grosse structure et soutenir les Sénégalais qui sont au Sénégal pour voir de quelle manière on pourra travailler pour qu'au moins on puisse faire dire à ces jeunes-là, on est prêt à faire et à vous soutenir pour monter des structures où il y aura l'éducation et le sport madame Diemé di marraine bés de di am bu baax ci defal initiateur les Benjamins on euh, ils nous ont invités à Gorée mais ils ont gagné l'équipe euh, de Dakar alors je crois que la coupe elle va rester ici et c'est c'est de bonne guerre. Euh, ils ont bien joué et ils méritaient vraiment cette coupe. J'ai beaucoup d'admiration pour Ibrahima je sais que euh, euh, c'est sa vie, euh, le sport, et surtout le sport pour enfants. Il y, met toute son énergie, toutes ses, tous ses sous, tout, son temps. Et je, trouve que, moi je trouve qu'il devrait y avoir beaucoup d'Ibrahim Faye au Sénégal pour relever ces jeunes-là, les occuper et leur donner un avenir meilleur. Il ne faut pas abandonner le, les études pour le football, il faut plutôt allier euh, sport et études. Il faut faire ça en même temps, tout jeune, et continuer. Un enfant qui n'a pas été à l'école, qui, est pris euh, même un peu tard euh, au football, on doit l'éduquer, lui donner une instruction et l'aider à franchir les étapes de la vie de manière correcte et pour lui assurer un avenir parce que le football, c'est certes, on gagne beaucoup d'argent, mais avoir un métier euh, c'est encore mieux. gannaaw ba match bi jeexee ci diggante ñaari équipe yi ñom Kumba Castel am nañ mbégte ak contentement bu baax ci seen victoire bi ca noné, lañu leen seen coupe ci ambiance bu am solo.